ñoo ngi sant yàlla subhanahu wa taala ñun julit yëpp di julli ci sangu mbindeef yi alayhi salaatu wassalaam di ko ñaanal jàmm ju sax dàkk moom ak njabootam gu sell gi ak saabam yu baax yi ak góor yàlla yëpp di muslu ci seytaane bu mu xejamal sunu diine waaye bu mu jax-jaxal sunu dund sunu borom nee na lépp lu nit mën a teg bët rek ñu koy tuddee dara def ko def mu nekk paire mu nekk ñaar ndax lu tool moom mbiram la moo tax nee na loolu yëpp lim ci jublu rek mooy ñuy tudd yàlla tamit te di ko peeral looloo waral li alquran di wax ne allasina hum li amanatihim wa ahdihim raawun mooy bi ngay dugg ci lislaam da nga waxoon ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne la ñaari baat yooyu nga wax li muy gudd gudd benn la il faut nga boole ko boo ci wàññee benn sa dugg ci lislaam day des ñu ne la nag loolu nga waxoon ba dugg ci lislaam lislaam daf lay forcer nga koy wax juróomi yoon par mooy bés bu set bala nga taxaw ci buntu jàkka ji li nga waxoon keroog bi nga dugg ci lislaam da koy répété waat da ngay taxaw ci buntu jàkka ji nga liqaam ci biir liqaam gi wax ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mooy jébalu gi nga jébaloon ci lislaam da nga koy répété juróomi yoon par bés moom la alxuraan di wax foofu ne allatina hum li amanatihim wa ahdihim raawun mooy colère nga sa colère wante nag yàlla ba dugg ci lislaam da nga koy euh, saxal ci sa xol waaye danga koy wax ci sa làmmiñ ci bés bu set juróomi yoon yàlla ni nag damay joxe waaye joxe yi ñoo ute li joxe la noo ko dénkaane joxe ki nga xam ne yàlla daf ko joxe joxe dénkaane ixta la ko arab di wax ixta nag yàlla wax na ci sootu naba yi ne ataan xisaaban mooy lii dama la koo jox waaye su yomal xiyaamee dama koy xisaab lépp lu ca baax muy sa sens lu ca baaxul su ma la yërëmul ma toppante ko yow mu am nag benn benn ci jàmm yàlla yi ku mel ni Suleymaan masalan yàlla mës na ko jox mbir ne ko yow moom li ma la jox nii jox naa la ko jox ak may mooy bu la neexee nga téye lépp bu la neexee nga maye ci waaye duma la ci topp dara boobu mooy ata xibba am na mooy may goo xam ne da ngay tàllal yàlla ñaan ko lu mu lay jox moom danga koy gis après moom ngay dégg nga naan wahab lana min ladunka rahma yërmande bi la yàlla di jox nga xam ne da koy yëg ci sa yaram waaye nekkul looy mën a téye lal ñaari xaaj la moom tamit mooy yàlla may la loo xam ne tàgguwu ci kenn dala koo jox rek wala yàlla may la loo xam ne ci loxo nit la ko jaarale lu mel ni yonent yàlla Haaruna mi ngeen di dégg yàlla deful ko woon yonent waaye yonent yàlla Muusa moo ñaan yàlla ne dafa bëgg yàlla def ko yonent yàlla tamit ne naa wahabnaa lahu min rahmatina aqaahu haaruna nabiyan maam lu ñuy wax xikmatu xikmatu mooy xam-xam boo xam ne xel mu sell lay bo nekk ci yow nga xam ne loo làmb mu yomb waaye loo xelaat tamit mu mu jàll yàlla may na ci ñu bari nee na wa man yuutal xikma faqad uutiya xayran kasiran waaye tudd na ca kenn ku ñuy wax luqmaan ne joxoon naa ko xikma xikma googu nag benn xaaj la ci amoon moom Suleymaan waaye boo demee ci sootul xamar yi ci juróomeelu aaya di nga fekk ne yonent bi alayhi salaam moom lépp luy ma lañ ko boole jox ko moom la yàlla wax foofu ne xikmatun baaliga mu am lu bari njëriñ nag ci àddina mooy safara mënoo koo ñàkk laal te soo moytuwul mu lor la nga xam ne ku xëy ku ne balaa nga ndékki wala nga añ foog nga laal safara te soo moytuwul safara mu lor la yàlla ne safara maa ko bind na ngeen koy moytu ngir bu leen fa mujjee waaye da ngeen koy jëriñoo fii ci àddina mooy yàlla am nay tur yu baax da leen ko jël mais yeneen tur yi niroog tur yàlla te du tur yàlla teg leen ko fa mu am lu yàlla tuddee leer leer moom lépp njëriñ la waaye day am temps du bëri njëriñ mooy soo tëddee ci sa nekk guddi bëgg a nelaw li li leer di bari bari njëriñ dañuy soxla nga samp nga fay lamp bi ndax jamono boobu yow yaa soxla lëndëm moo tax yàlla ne lëndëm ak leer yépp am na njëriñ lëndëm maay leeraayu euh, njëriñu lëndëm mooy lan diina ji ñuy tiitaroo ñun jullit yi ci lëndëm la ko yàlla jaarale ba mu raw keroog bi yonent bi alayhi salaatu war génn màkka dem yàlla dafa xiin lëndëmal asamaan ba boo sa loxo sax doo ko gis yonent bi jaar ci biir lëndëm googu génn yonent yëpp bañ jeex kenn ku ne bi ngay génn sa dëkk dem ci biir lëndëm nga jaar génn kon lëndëm am na ci lu mu am njëriñ yàlla indi beneen xam-xam bu ñuy wax maarifa maarifa mooy nga xam li ngay def te doo ko jaawale loolu yàlla wax na ko ci sootu yuusuf yuusufa dafa toog ak ay bokkam mooy seen caat ñoo ko yar mu xàmmee leen te xàmmee wuñ ko fa mooy nga comprendre loo xam ne ñeneen ñi comprendre ñu ko rek ku ne ak ni nga ko déggee waaye daal loolu mooy maari fa yàlla nag loolu jàngaloon na ko saaba yi ñoom dañoo xamoon àjjana xam ngoo xam ne dafa mel ni kër guñ kër guñ moomoon ñu koy nangu ko ci seen loxo ñu bugg cee jotaat ku tabaxoon sa kër ba pare ñu nangu ko sa loxo nga bugg cee jotaat lim lay jaral loolu la jaraloon saaba yi parce que ñoom dañoo xamoon àjjana xam gu leer mooy wa yudxiluhum jannatan arrafaha lahum yàlla nag teg nit nag ci yoon ne ko uy si ma maanaam daf ko teg ci yoon ne ko uy ma ne ko nag bul jaar ci ñal yi bul jaar ci ñax mi jaaral ci yoon wu mag wi boulevard bi wala corniche bi corniche bi nag bëri nay tur danañ koy ooyee siraatul mustaqim dinañ koy ooyee tariqul mustaqim danañ koy ooyee orwatul wusqa loolu yëpp ay tuur la rek waaye daal bul kenn jaar ci ñel jaar leen ci yoon uyu si ma mooy déglu alquran ak sunna mooy yàlla mu ne ombat naa leen ci yoon wu jub wi jaar leen ci yàlla nag ne képp ko gëm lislaam am nga fiix ku wedd lislaam it fiix doo ko mën a am waaye liñ la ciy ñaanal rek mooy nga ñëwaat ci lislaam rek ndax yàlla moo ne ku jàmm yàlla ci beneen yoon bu dul lislaam coono rek nga cay am coono jëmm waaye du ma nangu li ngay jëf moo tax yàlla ku am xam la yàlla ku lewet la ku bëri yërmande la yàlla nag kenn la koo xam ne dafa fiir fiir gu uteeg sunu bos ñun fiir buñ ko waxee rek mooy ku fiir ci alalam wala fiir ci ci jabaram yàlla fiiraayam mooy bu ko kenn wax ne am nga jabar bu ko kenn wax ni am nga doom waaye bu ko kenn wax ni am nga mbokk li tax nanguwut loolu jar na leeral gis nga nit su amee jabar mun na jeng nit su amee doom mun na jéng nit su amee mbokk mun na jeng waaye ñooñ tam mën nañ ko yëpp jabar bi nga ko takkee es dala ruusoon waaye su yàggee ci kër gi di ngeen dañ leen mës a àtte doom yaa ko jur waaye mën na la miin ba ngeen jàppante mbokk itam mën ngeen xëy jàppante yàlla nag bañ ko ko yàpp moo tax mu dindi loolu yëpp ci boppam amul jabar ngir bu mu ko miin amul doom ngir bu mu ko miin waaye amul mbokk bu mu bu ko miin lan la yàlla am jaam kese koo mën a doon ak tur wuñ la mën a wooyee jaamam rek ngay mën a doon moo tax wax na ci beneen aaya ne lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah wala almalaikatu almuqarrabun kon yàlla nekk jaamam rek moo mën a nekk yàlla nag nee na yéen doomu aadama yi seen uutee gis-gis yi seen uutee xalaat yi warul mën a pëccëx pëccëxloo pénc mi mooy kenn mënta fexe ba ñëpp bëgg benn couleur yére ci benn dëkk kenn mënta fexe ba ñëpp bëgg benn palaa bu ñuy lekk kenn mënta fexe bañ a bokk métier loolu mënta nekk carrément comme mënta nekk nag kenn ku ne respecté la sa morom la muy def xamal ne la muy def loo ko xeeb xeeb bés dina jot nga am ci soxla mu mel ne rek ñaar ñoo xam ne dañoo bokkoon kër du ñuy wax ñoom ñaar te ñoo bokk seen seen yaayee bokk ndey ak baay doomu ndey lañ kenn du ciy wax ak sa morom kenn ki maçon la kenn ki ministre la ñu jékki rek yàlla ji xiin taw taw bu ñëw daaneel néegu ministre bi te néegu suuf la xeet di ko daane ko fële waaye da koo sengoon da koo sengoon néegu maçon bi moom da koo da koo xeddi biñ xëyee maçon bi moom mënul daaj waaye mën na tabax waaye néegam xeddeeku na ministre bi moom mën na daaj waaye mënul tabax néegam daanu na waaye am nay mool ñu ñëw ñoom ñëpp ñu ku ne taxaw tiimu sa néeg kenn ki jékki-jékki ne ko léegi nag mu ne ko léegi li yàlla bëgg xam nañ ko dafa bëgg ñu wax rek yàlla dafa bëgg ñu wax léegi ni ñuy def mooy tabaxal ma ma daajal la kon noonu la àddina di doxee mooy kenn ku ne yow li nga moom kese mënoo cee dund fokk nga soxlaal keneen kon nag respecteel ko li muy métier su ko defee ngeen am jàmm yéen ñëpp yàlla dafa xam ñun xamuñu nañ topp ci xam-xamam boobu ak hadisam yi ak sunnaam yi foofu lañ yër foofu lañ yërmande nekk àllaaxira nag yàlla mayewu fa leen lenn da koy jaay xam ngeen nekk tëdd ak sàngoo mbàjjam jamonoy lolli bii noddukat bi dalay gaaruwaale te Iblis mës na waxtaan ak yonente bi alayhi salaam ne ko kaay mu wax la loo xam ne xam naa ne xam nga ko waaye dama ko bëgg a wax nga dégg yonente bi ne ko waxal ma dégg mu ne ko est ce que xam nga kan laa gën a bañ mu ne ko foog naa ko de mu ne ko jaru nga jaru nga ma koy nga ma koy leerlu yow laa gën a bañ parce que yaa jiite yonante yi mu ne ku ci topp mu ne xanaa noddukat yi noddukat yi rek laa bañ parce que su fajaree ñëpp di sàngu ñu leen di leen di leen gaaruwaale naan Euh, asalaatu xayru mina ndaw moo tax noddukat yomb naa bëri ay noon ci dëkk parce que ñi bëggut a julli yëpp dañu jàpp ne daa bëri wax wala heure bi jotagut ak nangam ak nangam waaw ku yàlla nag tiir nag nga nangoo jóg fajar dox njolloor dem julli ji tusubaar wala ajuma coono yooyu ngay coono yàlla mu ne àjjana nag dama koy jaay ci prix mooy nga bàyyi sa temps dem defi leneen moo tax mu ne ku bàyyi al ku bàyyi àddina jublu àllaaxira joxe temps bi nga war a joxe ak heure yi ngay joxe su boobaa nag yàlla dina la gërëmal li ngay def mooy foog nga def dara door cee jot yàlla ma yeewul na benn yoon waaw léegi nag xew na jamono bi yenn sëriñ yi mel ni Moussa Ndaw wala ñu mel noonu ñu sekk sekk daal dañuy jékki-jékki di maye àjjana majaanan majaanan mooy gratuite loolu alxuraan waxu ko saxut fenn yàlla mayewul àjjana da ngay jaamu yàlla moo tax yonent yi nga xam ne ñoom la yàlla jiital hmm, ku mel ni Jibril borom daraja jooju ko yàlla tànn kooku moom de ak a nangu na jàmm yàlla la ak a yaakaar yàlla ak a tiit ak a tiit ci yàlla yonent bi alayhi salaam mës na waxtaan ak Jibril ne ko yow Jibril mu ne waaw mu ne ko yow est ce que mës nga gis benn bés bu yàlla mës a mer mu ne mos naa koo gis mu ne ko lan ma ko merloo woon mu ne ko mooy bi catholique di waxee ne moom am na doom mu ne keroog de fekkee naa bi Isa di juddu ndax ma demoon yóbbu ruuxu Isa ci yaaya ci yaayam muy Mariama waaye bi mu juddoo ba ba ma dellu siwaat ne ko euh, masihu juddu na gaa yi ne am na doom mu ne gis na yàlla mer na mer boo xam ne keroog musuma gis mu mer lu toll noonu kon nag yàlla dinay mer waaye dinay bég tamit ni muy bégee mooy lan képp koo xam ne dimbale nga sa mbokk jullit te pare woo koo nettali képp ko dimbale sa pare sa mbokk jullit yaa xam ndimbal bu mun a doon nga ne ndimbal bii ma ko dimbale xanaa moom mu wax ko de waaye man duma ko mës a nettali yonent bi nee na xamal ne tànk yaa ngi koy noppi rek yàlla nga bég ci yow ak lu mu yàgg-yàgg nag tànk yaa ngi koy noppee rek yàlla ngi bég ci yow bés boo ko nettalee nag ah yaa dindi contrat bi rek suñu boroom nee na nañu yërëm suñu njaboot gi nañ leen yar nag yar leen jàngal leen julli jàngal leen woor yar leen waaye nañ leen yërëm nañu yërëm jigéen ñi rawatina jigéen nag niñ koy yërëme yomb na mooy dee ko wax dëgg de ko tag ci charia waaye dundal ko wodd ko fexeel ba bu mu dem di lijjanti loo xam ne yaa ko war a mën a def loolu sax du sa sag yow mooy li ñu bëgg a wax mooy ñun ñëpp nañ xam ne dépasse góor a ko war a joxe dépasse bu mën a doon nag ba ci njëgu jën sax koddaay góor a ko war a joxe néeg bi ñuy dëkk góor a ko war a def waaye ku jigéen gi tamit suñ la toggulooxee ba mu ñor la gën a baax nañ ko jox matooru kër gi bokk la gën a baax ci ndab li nañ ko jox matooru kër gi suñ xottee yére yi ba mu set ba mu rafet bul xaar bay tukki dor koo sol wala ngay dem xew la toogal anu ngoon rek nga tàggusaanu toog ak sa jëkkër parce que moom loolu mooy droit am ci ci complète bi islam daf ñu forcé nañuy toppatoo njaboot gi waaye force gi dañu forcé ñu yi ak kilifa yi lii xadis la xadis mooy loo xam ne yonente bi alayhi ko wax njambaas ko ci kàddug yàlla di alquran ngir suñu dégg gën a yomb waaye suñu jaamu gën a sell yonente bi alayhi salaam képp ku jëmbat benn garab bu ñu waxee garab nag ñu bëri dañuy foog ne mango rek wala darkase wala new déedéet jaxatu garab la kaani garab la salaat sax garab la ku jëmbat dara rek mu ne li nga jëmbat noonu mu ne nit lekk ci walla mbindeefu yàlla ni ki picc bu ñaw rek xos ci xob salaat yi lekk ci ba pare naan ci sa mbalka dem dem dem ñibbi mu ne nanga xam ne bépp mbindeef mu lekk ci sa mbayteef yàlla dina la ci bindal tiyaabo moo xam nag bi nga koy lekk yëg nga ko wala yëgoo ko moo xam mu mel ni ñun ñu bay dugub rek nga xam ne nga ne ren picc yi laal nañ sama tool bi bul ko naxarlu farax la ci yow yàlla nee na loolu dara dana la nekkal tiyaab yonent bi alayhi salaam nee na tam képp ku jéggale yaa xam jéggale bi lu mën a doon te fekk bi ngay jéggale ñàkkoo pexe maanaam demoo kër borom dëkk ngeen jógee fa dem gendarmerie ngeen jógee fa dem tribunal résional dem tribunal départemental yaa xam fu ngeen mën a yegg ba nga xam ne ñàkk nga procès bi nga ne léegi damay yàlla mu ne muñuloo amoo ci benn tiyaabo da ngay muñ fekk sa mbokk yi ñoo la wax dëgg da nga fekk da muñ fekk imaamu dëkk ba moo la ñaan kilifa dëkk yi ñoo la ñaan te am na loo xam ne jot na nag ñu delloo siwaat ko mooy ñun fii ci Sénégal rawatina ci région Fatick rawatina ci commune bu Toubacouta rawatina dëkk bu ñuy wax jagle aada la fi waxuma sax ci côté daara ji waaye aada la fi depuis ci Biram ba léegi dëkk bi kilifa yi dañ daan am kàddu kàddu gi mooy ñu man fàttaliku naa fii jagle benn convocation mosu fee jógee dem dem Sokone lu mun a am bu kilifa yi waxtaanee dafay jeex ku nekk dox soxla loolu nag bu ko buñ ko xewil buñ ko génnee nañ delloo si waat loolu ci réew mi yëpp nag lañ ko oote na ko ñëpp def mooy nañ fexe kilifa yi ñu jox leen kàddu njaboot gi déggal leen ñu noppal ñu noppal ñu féete kaw ko defee lépp nekk jàmm moo tax yonte bi ne képp koo xam ne baale nga te fekk am nga kàttan waaye yàlla na la ko baal yow tam yow ma la ko yam nag yàlla wax na ci alxuraan ne wal yaafu wal yasfahu alla tuhibbuuna an yaxfira lahu lakum waaye yow mi wax ne doo bàyyi mbaa amoo bakkaar yow miñ la bàyyil nga ne doo bàyyi mbaa amoo bakkaar yow tamit biñ la baalul nag yonent bi alayhi salaam nee na julit julit mooy mbokkam bu mu ko saaga bu mu ko jëw bu mu ko fexeel mooy julit daal buñ koy seet mooy koo xam ne julit yëpp mucc nañ ci làmmiñam waxu leen lu ñuy lu ñuy fàttaliku waaye laalul seen alal ñu koy ñu koy wër wala gaañul seen doom ñu koy naxarlu yonent bi alayhi salaam nee na jullit dëgg-dëgg boo koy xool mooy koo xam ne dafay wéet di ñaanal mbokkam jullitam mais yonent bi alayhi salaam ñun xam nañ ne ba mu nekkee taayifa dem fa di woote waa taayifa sànni koy xeer yo yàlla yebal ay ay malaaka ne ko bu la neexee ñu jël ak sa bay ni këpp ko waa Makka mu ne moom comme yàlla intervenir na rek xolam sedd na def daf ne allahumma ixfir li ummati innahum xawmun laa yaalamun mooy nit dafay ñaanal mbokki julitam yëpp bu kenn toog sax di jël ñaan gi di ko yemale Sénégal kese waaye yow mi seen nekk Sénégal ña nekk Iraq say mbokk lañ te julit lañ ña nekk Suuriya ak Yaman say mbokk lañ ak feneen ak feneen bul yemale ñaan gi ci sa dëkk bu ko yemale ci sa tund bu ko yemale ci sa région da ngay ñaanal julit yi àddina yëpp mais bu ko yemale ci julit yi kese da ngay ñaanal mbindeefi yàlla yëpp mbindeefi yëpp nga war a ñaanal jàmm bu benn réew amut jàmm te du réewu jullit nga foog ne fa lay yem ci sa kaw la jëm si kon jàmm dañ koy ñaan mu sax ci réew ci ci àddina yépp ko defee nga jot cee jot sa wàll mu ngi mel ni daay rek daay gooy seen saxaaram nga ne du yegg si ci man fexeel ngeen fay ko rek kon ñaan jàmm day saxal day saxal fiix kon na ko ñëpp di ñaanalante na kenn ku ne di toog benn bés rek ne diw de gëj naa koo dégg xaw ma lu ko téye waaye yàlla nay jàmm waay daal di ko ñaanal lu baax wala boog mu mel noo xam ne moom sax mën na am moom mi ko mel neexu ko. nga ñaanal ko yàlla diw dee wax dëgg la sama mbokk la ni mu mel daal man neexuma waaye ni mu mel yàlla na ko ci yàlla génne loolu jar na ñaan te ñaan ko ko ñaanal mën na ko soppi yàlla def si ñun dégg ak topp yàlla na ñu tiitaroo yàlla na ñuy lislaam dëkk bi yàlla def fi jàmm def fi xéewal def fi ndam def fi ndimbal def fi tam teraanga yàlla na yàlla def tamit euh, ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo toll ci ñu yaakaar leen ci seen njàng ak ci seen ut métier yi ñuy topp yëpp yàlla def ñu jot ci waye ñoom it nañ am fulay buñ ko jotté ñu indi ko seen wajuri al mal anta wa maluka li abika wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim wa qumu ila salati yarhamukumullah